élément Barth fu ñuy njëkk a manam maanaam élément Barth dafa am lu téggu ci élément boobu mooy Barthélémy Diaz mhm. ku né Barthélémy Diaz xam na ni tay moy maire ville de Dakar mhm. ba nopi mu bokk ci commune bi nga xamanteni conseil conseiller municipal nga fa mhm. ñu jëm ci ay élection législative yi ñu jëm muy anticiper ñi gis ñu am coalition bu ñu tout tuddé ko sam kadui. yi gaay duggal turam ci liste bi muy tête de liste barki dembu ñu dégg ki di Walfadjri dal di publier conseil constitutionnel dafa invalider l'idée di candidature am ginnaw lolu ñu dellu si waat ñu ne dañoo juum ñi ngi jéggul ci biir lolu après ki nga xamanteni moy sen mandataire di yum mm-hmm. dal di exprimer ko jot ngeen ben notification mm-hmm. tay bi ngeen déggee cadre bobu ak élection yi fu mu toll nak ngeen jappalé li nga xamanteni moy information bi jógee ci wal Walfadjri euh d'abord naa la xaw ratifier ci man limay waxé waxee Barthélémy mm-hmm. Diaz uh-huh. xam nga da nga né le maire de la ville de Dakar man tuddeetuma ko noonu dama ko le maire de la nation man la nekk parce que gis nañu taxawayam ci Touba. Uh-huh. ak yeneen i gox yoo xamante ni amaana mun na ko bañ a def sax mais dem na fa indi fa euh, participation ci lu ko yàlla dénk. Mhm. ndax yag nako def da ngay xool Mermoz Sacré-Cœur. Mhm. jamono bimu fi nekké maire amoon na benn scandale bu amone feulé ci militaire wakaam yi. moom dafa intervenir oon jàppale leen indi len fi dëkkal len moy ci centre liberté 4 bi donc yag na duggu euh, ci luy jëm ci luy jàppale doomu adama yi mhm. ndax lolu moko ñor Sénégal li nga wax nak damay commencer ci wal Walfadjri comme tu l'as dit mo joxé information bobu noonu wax ni euh, conseil constitutionnel dafa addu ci bokk Barthélemy Diaz ne mhm. kat Barth mënul bok mhm. fu ma koy taxé rek euh, Tange moy gis nga les journalistes partisans ñi ngi commencé yak réew mi. Mhm. te loolu lu doy war la ci réew. parce que tay journaliste groupe de presse bu melni wal Walfadjri Sidi Lamine Niass yalla ko yalla yërëm xare ko aljana taxawal ko. def fi liggéey bu am solo yaakaar ni tay fu mu toog wala fu mu tëdd. dina am lu ko metti bu gisee yi lenn waralu ko nak man luma japp moy c'est de la manipulation. parce que on a vu tey Walfadjri bi ak ñi mu lëkkalool ñëpp. Mhm. lu ñuy def saa su ne mooy bu ñu xëyee ñu ngi défendre gouvernement bi. Mhm. du ñu gis erreur gouvernement bi mais ñu ngi xool nu ñuy dalee ci kaw. Mhm. Euh, opposition bi. tu l'as vu dama koy dama koy cité muy euh, Mame Birame Wathie boobu. taxaw di jéggalu ak Moustapha Diop. ñoom dañu ne ñoom ay journaliste lañ avéré. mais yéen journaliste dafa war a tëddee njaaxaanaay surtout groupe de presse bu toll noonu. tey dañu war a waruñu def par parloo journalisme. fu ñu ko war a teg mooy informer juste et vrai déjà ba pare tolloole. Euh, opposition bi ak gouvernement bi. di partager leurs informations mais j'ai entendu parce que dafa am fadjiri ñu tak ci mhm. comme Solution TV. ñom Sa Nous di fa tok Nous Sa dama dama sommes mu wax ko xamu Nous daf ko Nous wala ko. Mhm. mu ne lu ñu ci plateau bi moy di défendre gouvernement bi. Mhm. manam ñom daal erreur du gouvernement manam gouvernement bi fi quoi. ok mais ni duñu ay le gouvernement bi fi nekkoon auparavant doon juum ñu koy rectifier ñu koy rectifier ñoom di dal ci kaw gouvernement donc c'est inadmissible do do mën comprendre yenn yi ni, bu ñu nak nag démb ba information bi man quand bi ma ciy àddu sax dama ne il faut que me vérifier ko mhm. ndax walfajiri moko ko bind te walfajiri nekkewul fi ludul dul di attaquer l'opposition, mhm. tu l'as vu am na ci ay yeneen journalistes yu tàq ci leen propagande wala euh, di di di wane di wala di fessel yenn yo xamanteni mom le ministre bi def wala ci tak ci gouvernement wala ñu tak ci Ousmane Sonko

plateau je je prends euh, exemple ci euh, bi ñuy def vendredi da ngay gis ñu invité ben opposant tek fa seeni chroniqueur pour pouvoir et puis et puis yamul sax ci Walfadjri mhm. j'en ai vu d'autres bu melni yor yor yoor Serigne Saliou Gueye moko mom moom Serigne Saliou Gueye mom dafa mel ne ku jappal dans Barthélemy Diaz wala ñenn ci opposition bi mom deful lu di tirer ci opposition bi. mais pourtant na convention ak Barthélemy Diaz na convention convention boobu ñu dag waaw bi ñu ko daggee la commencé attaquer Barthélemy Diaz mais avant de tirer ci Barthélemy Diaz def da défendre sax Barthélemy Diaz bec et ongle. ba ci dossier ñaga bi. Seigne Gueye ci défendre Barthélemy Diaz. ñu dem ba ci mu bind yor-yor euh, gouvernement bu bees bi di xaar pour jëlee Barthélemy Dias ci mairie bi te moo ko gën a xam ni moo ko gën a leer ni Barthélemy Dias kenn mënu ko jëlee ci mairie bi parce que il n'a pas été condamné pour crime. il a été condamné pour délit kon Bart mënul ñàkk mairie bi. mais il l'a fait juste pour manipuler. Mhm. ñoom xam nañ ni comme ni Walfadjri def conseil constitutionnel addoogul léegi ñu ne xaaral ñu jéem a jouer ci maayanu gars mhm. wala jéem manipuler wala pour indi genre influence. Mhm. parce que ñoom bokkum Barthélémy Dias da leen déranger. et lolu nak du rafetul parce que Barthélémy Dias jiw leen loolu. man mi ndaw mi rek jiw ma leen parce que Walfadjri combat am yëpp dañu dem taxaw. saa yu leen bëggee faagaagal ñu dañuy dem taxaw jàppale leen ba si seen kees boobu noonu ñu tegoon mhm. man maa joxe woon idée bi d'accord man maa joxe woon idée ne teg leen kees pour sénégalais yi di leen jàppale sax parce que waruñu di leen faagaagal bu ñu demee tey nag bi acharné ci ay opposants c'est c'est c'est c'est grave quoi ci ci réew léegi nag comme ni nga wax sànq mooy Barthe est la tête de liste de la coalition sàmm sàmm sa kàddu il le mérite mhm. et que parce que def na fi ci réew mi duñ fi nekk di ko limaat day gudd xam nañ ni c'est Euh, politicien il a toujours servi le peuple ñu ngi wax que les politiciens sont fi dañ leen a sonal dañ leen a politique Les politiciens, sont les ko Ils kenn waxatu ko wolof Njaay daan wax naan euh, ñu daan wax naan mag jaar ku fa jaar tak ban waye ku fa jaar fu mu jaar ci politique ku fa jaar say la gëj gis. d'accord te yag nako def kasso yi. Mhm. la neex. d'accord tay la ma minutes. Mhm. la Cap Manuel. wala rëbës wala mm. yooyu amaana kaso benn kaso neexul waaye am na fu gën a sedd te ñu daan tëj ba di leen yóbbu ba Tambacounda di leen faagaagal Tambacounda bu seen kaso yi metti na metti goo xamante ni doy na waar te Bart mos nañ ko fa tëj musul wokk musul xuri musul ne damaa feebar kon dañu jox nit ki cër bu ñu fi nekk di taxé nit ki de traître wala de kenn xamul di saaga di wax yu ñaaw loolu du politique

waaw dinaa ñëw ci loolu ah, dinaa ñëw dinaa ñëw ci question boobu tey damay ñëw ci tey lii nga xamante ne mooy Walfadjri def ko maanaam rôle presse parce que da nga am aussi rôle mhm. te activiste dafa war a sensibiliser lépp loo xamante ne jaarul yoon mhm. même su dee tey ci sa parti la mooy fi parti nag su mhm. jaarul yoon da ko war a dénoncer donc tey rôle presse ñenn ñi jàpp nañu ko Walfadjri moo ko tey c'était juste pour manipuler li nga xamante ne mooy opinion bi wala pousse benn genre pour que ñu jël décision boobu parce que Thierno Bocoum génn na ci lancer ci benn alerte tey yow en tant que activiste ko jàng est-ce que position la non non parce que leen ñu ci li nga décret port du port euh, euh, croix bi uh-huh. wal encore Binda, que ministre de l'éducation mom autorisé pour que ñu sol croix ba nopi ci établissement yi voilà donc au lieu de voile il a dit <laughs> viol voilà donc Tu euh, voilà mu voilà les écoles publiques et privées du Sénégal la croix et le viol autorisé par c'est que nañu waxal gouvernement bi lu baax taggal maam euh, gouvernement bi fi nekk. Mhm. maanaam ñoom gisuñu erreur u gouvernement bi ñoom daal erreur u opposition bi la ñuy gis. Mhm. parce que dañoo parparloo. partisane la presse partisane. c'est tout léegi nag euh, Tange yaa ngi wax léegi ci élimination Barthélemy Diaz wala ci génne ko ci liste yi wala dara. loolu bu ñu ko defee. Mhm. ñun ñu ngi doon xaar tey le premier ministre génn défendre lii.